mënta nekk da lay jëli wéel ba kanaan sa wéel foofu la da nga jàpp bi mu jëm kanam ku la it benn lépp ngay am back dance graffiti rap R&B music concert salaam salaam ah, nga ah, xam ne yaa ma doon déglu ci couleur urbaine das réel on va essayer de rénover léegi dañuy génn ah dañuy génn seeti artistes yi euh, ba mu naan artistes yi bon euh, comme gars yi contexte bi ñu xam mooy comme euh, dem seeti rappeurs yeeg yooyu mais ñëpp la ngi seet ah essentiel la nga doon artiste ah. euh, nga nekk au niveau de Mékhé comme ni mu leen ko wax on va rénover avec euh, couleur urbaine dañuy génn ak euh, suñu caméra ñëw film la waxtaan ak yow après ma dugal ko sama chaîne YouTube ah ok Teuf Connection TV Sénégal comme ni mu leen ko waxee version bu bees lay doon ah ok daal comme ni mu leen ko comme ni mu leen ko waxee woon si ah. bande annonce bi les couleurs urbaines dañ koy fexe génn ah dañ koy fexe génne Euh, dem seeti Jeunes Talents yi seeti artistes yi bon ba tax euh, looloo waral tey ma invité ku mel ni Ndouff Ndouff Connection na Ndouff Collection ah, euh, moom mi ngi yëngu si wàllu design na ah, wàllu design vidéo bon yooyu da koy def am ah, bi nga xam ni mi ngi dëkk au niveau de Mékhé moom léegi sama first affiche bon moo koy defar léegi dama ko invité donc pour nan la ñuy defaree affiche ah, nan la ñuy defaree affiche euh, léegi kon noonu lay demee léegi ñu dem ñu xool ñu xool moom nan lay euh, confectionner affiche du début à la fin ah, ok. génn génn ma xoolal ah. mu nga commencé zéro. waaw. génn ma xool. nii la ko a zéro zéro ah, officiel photo bi. ah loolu moom yow kii moom moo indi kii. da ngay fermé. ma fermé ko kii bi. fermé fermé fermé kay fermé yow doomu rek. fermé kay xam nga xool nga teg baa nii si suuf. mi mi ubbi naa ko. fu fu fu kanaa gis léegi ko mhm. waaw léegi su ma neexee mu dupliquer ko quoi mu xëcc ko nii ba deuxième carte bi mu doon ñaar. waaw hmm? ah, dama dama ko dupliquer rek. def ko ñaar quoi léegi ma masqué benn bi. léegi utiliser bii ci suuf. léegi outil ah. kii sélection kii bi laa jël quoi outil sélection bi mhm. sélection bi ci kaw nii. dégg iya, kulur couleur bi par couleur ray la nasi mais jël naa fii jël naa plus la nek plus na mooy ajouter ah, quoi ah. hmm. plus bi mais bu nekkee ya moins su ma defee nii day wàññee ils ont ya, léegi plus la nekk mooy moo gën bon bu la neexee nga jël ça dépasse ci yére bi rek waaw waaw léegi gis na plus maanaam damay yokk rek moom kii day yokk seen sol mooy defee tànk bi fii nga ya, ñëw moins sa tànk bi bokk ci waaw egg naa moom taas ah ok waaw waaw mooy fii ah on est comme ni ñu def ay seize six ak yooyu boo ko boo nar a liggéey ak machine du dem comme ah du liggéey bi des deux mille liggéey moo ah waaw waaw day imposé ah loolu la de Okay, I'll give you. donc léegi lii nii su ma bëggoon bopp bi léegi teg lii danga xam ne moom fii nag dama bëgg bopp bi génn quoi parce que fii yow fii jarul shift ak ah bon normalement mais fii la daa laay coché comme ça nii dama ko xëcc fii quoi léegi fii su ma ko xëccee il faut que waaw bu la neexee nga ba shifté waaye man su ma bës mais su ma ñëwee fii su ma xëccee ba pare damay ñëw ci kànnaar bi lay bës mu mu tolloo soit da ngay bës shift nii xëcc mu normal wala waaw waaw moom moo gën a gaaw wala man damay ñëw bës mais bu dee ñoom kii dañ koy daan ñoom moon dañ ñoom si lañuy kii lu bari waaw ndax bu dee dernière version yi la moo di sama des fois foofu laay gis ñu kii ndax bu dee dee bu la neex loolu moom yomb na Kaana bu leen di jiw léegi bii nii damay jënd masque bi masque masque ok léegi gis nga bii nii xamul lan laa ci soxla fii nii rek bopp bi génne. waaw waaw léegi loolu laa ci soxla léegi kon li ci des dama koy nëbbu damay ñëw ci masque bi agrandir ko mu rëy léegi mu def noir pour mu nëbbu quoi noir. léegi dem exactement. léegi nii soxla wu ko fii. léegi moom bopp bay ne ci kaw lii feeñ moom laa soxla léegi loolu laay bàyyi léegi moom day mel ni lu génn ci kii bi mais ñaari calculateur la nii léegi moom mu liyee ko shit bi nga koy dugal da nga ñëw teg ci yëpp lii ñaan ñii waaw kii la benn série la naqar. mais naan mi ngi nii ko defar. di def lu naaj foofu mënti nekk da lay jëli foofu la da ngay jàpp ci bi mu jëm kanam kër urbain lépp ngay am breakdance graffiti rap R&B news concert wax ko sa gars So up, guy?